madame Sow laa tudd Awa Wade man maay coordonnatrice PAREM PAREM di programme d'appui à la résilience des ménages pauvres et groupes vulnérables ñun nag suñu projet euh, dafa nekk projet boo xam ni dafa juddu ci Covid bi bi gannaaw bi nga xamee ni Covid bi ñëw na euh, solo lool jigéen ñi maanaam kër yi ak bi euh, mesure restrictive yi ne amoon nga xam ni jigéen ñi mënuñu suñu jaay liñ doon jaay yëpp wàññeeku na. ak ak ñi nga xam ni groupe vulnérable mu mel ni waay laago yi ñoomi tamit ñoom ñëpp seen seen ak am-am wàññeeku ca la gouvernement italien bi nga xam ni Italie daal di lëkkaloo ak gouvernement Sénégal daal di teg projet bii nga xam ni moom la ñu tuddee PAREM. projet bi nag mu ngi nekk ci biir ministère bu ñu ministère bi nga xam ni mooy ministère de la femme de la famille du genre et de la protection des enfants ci nekk ci benn kuréel bu ñuy wax cellule de de suivi des projet et programme de lutte contre la pauvreté bu ministère de la femme ah gannaaw boobu nag bu ñu bu ñuy defee bu nga projet bi ñu ko indee ci biir Sénégal ah, ñu wax ñu nag teg teg équipe bi bi ñu tegee équipe bi nag ñu ni ñu nañu tànn ay région yoo xam ni dañ fa war a intervenir ci région inter li ñu war a intervenir yooyu looloo taxoon ñu choisir ci njëg njëlbeen gi ñeenti région muy région de Thiès région de Dakar région de Diourbel ak région de Saint-Louis am na yeneen région yoo xam ne moo xam ne muy région de Kaolack ak région de Sédhiou ak Kolda ak Ziguinchor dinañ fa dem incha allah léegi mais ci région quatre régions yi la ñu njëkk liggéey bi ñu tànnee lool ba pare ba tànn département bi ci lañu wàcc nag ci biir ci biir région bu nekk daal di lëkkaloo ak gouverneur yi lëkkaloo ak préfet yi ak chef de service yi bi ñu ne lëkkaloo ak préfet yi da ngeen di war a dañu war a teg benn arrêté boo xam ni dañuy liggéey li ñuy liggéey dañu euh, chef de service yi ñoo ñu koy liggéeyal moo tax foo fu ñu dem département bu ñu dem ñu nekk ci euh, chef de service yi la ñuy liggéeyal gis ngeen fi tey waa développement communautaire ñu ngi fi waa action sociale jeunesse appui au développement local ñoo ñooy ñooy jàppale jigéen ñi ci biir kër yi ci loolu nag lañ leen waxoon ne leen tànn leen ay ay communes yi nga xam ne moom la ñu war a intervenir ci région de euh, de ci ñun ñu ngi ci vingt communes mais ci région de Diourbel Sénégal ñaari commune rek lañ fi nekk muy commune nu ak commune bambe ci looloo taxoon nag bi ñu gannaaw bi ñoom ci chef de service yi bi ñu tànnee commune nu ñoom waa préfet validé ko ñu yónnee ñu ko ñu ni nañu tànn nag ñi nga xam ne moom la ñuy liggéeyal ci biir commune bi tànnee fu loolu nag ñu ñëw fii définir ay critères ñu am neuf critères yoo xam ni dañ koy jëlee ci biir RNU bi RNU bi moom kenn dootu ko présenté mooy registre boobu nga xam ne ay ay ay ñi doole rek ñoo ci nekk boo xam ni euh, ay ay waay laago ñoo ci nekk ak yeneen ñi nga xam ni maanaam bi ñuy distribuer euh, euh, du vivre yi ci Covid amoon na ay nit ñu ci dolli woon ci loolu list yooyu la ñu boole ñu ni nañ ci tànn deux cent cinquante ndax commune bu nekk deux cent cinquante lañ ci tànn bi ñoom bi ñu tànnee ba pare comité dem ci ciblage utiliser comité ciblage yu RNU bi yooyu yëpp la ñu dem dugg ci dugg ci quartier yu nekk tànn ci ay ba deux cent cinquante yi mat ci deux cent cinquante yooyu la ñoom la ñuy liggéeyal bi ci loolu bi mu dee jeexee nag ñu ni leen ah liggéey kenn ku nekk da day jafe mais li li gën a rafet mooy ñu gën ak gën a noppale nañu liggéey ak ñoom ànd ak ñoom def leen réseau donc commune bu ñu dem rek am na réseau réseau des bénéficiaires de bourse économique li ñu leen jox nag bourse économique lañ koy tuddee maanaam bourse boo xam ni ci wàllum koom-koom ngay lëngatu te wuute naag bourse bi nga xam ne moom lañ la sécurité familiale ba mu leen di jox ndax bourse bi yëngatul moo leen tax a jóg économiquement liñ doon def te nga xam ne bi bi bi Covid ñëwee daf leen a gàllankoor ci loolu lañ bëgg ñoom ñu yëngatu ci looloo tax nag ñoom bi ñu paree ba def seen réseau ba pare ñoom seen réseau bi fii mu ngi ànd ànd ànd takku liggéey bu Jurbel donc paree ñu daal di leen di former yóbbu leen ñu defar leen réseau am nañu statut am nañu règlement intérieur ñu daal di yëkkati 20 millions ñu ubbi compte ñoom ku nekk ubbi nga compte ñu ñu leen ubbi leen compte ci que ñun CMS Dakar moom la ñu signé compte boobu daal koy wàcce ci CMS fii yëpp boo xoolee Diourbel CMS Diourbel foofu lañ demoon léegi dem yëkk génne seen xaalis ci biir loolu nag lañ leen jël 20 millions dugal ko ci seen compte 20 millions boobu nag bala nga ciy mën a jot il faut ñu bindal la projet chef de service yi ak relais yi communautaire ak APDC yi ñoo leen dimbaloon di leen bindal projet gannaaw bi ñu bindee projet ba ñu ñëw fi valider ko pare nag ñu ci lañ jël 250 yëpp kenn ku nekk ñu formé la en dynamique organisationnelle maanaam seen kuréel réseau bi nan lay doxale ak beneen formation gestion financière maanaam saytu seen xaalis bu ko jotee nan lañ koy saytoo bi loolu weesoo nag ci la ñu tey jii nag ñu ñëw ñu ni nag dañ leen dañuy décaisser 20 millions la ñu war a la ñu war a décaisser ci ñetti fan parce que jour bi ñu paree information rek ñoom dañoo jël seen euh, def plan de décaissement ñu ni première jour bi dana danañ décaisser 6 cinq cent deuxième jour bi def naa 7 million beneen troisième jour bi million cinq cent boo ko xoolee muy 20 millions yoo xam ni dañ ko war a décaisser fii ak lundi. tay tay ak suba dinañ dekese su lëndi ñu mu jeexal ñoom ñu dekese li ci bi bi ñuy dekese nag dañ leen a wutal ay jumtukaay yu ne kenn ku nekk am nañ juntu am plan de décaissement am nañ cahier de décaissement cahier de remboursement am fi kenn ku nekk fiche individuelle am nga ko pour ni nga xam ne sa xaalis ak nan nga koy faye ak nan nga koy ràmba ak kenn ku nekk yore nga sa su projet ñuy gërëm nag bu sant bu baax autorité yi nga xam ne moom lañ fekk su à commencer par le gouverneur ak le préfet jàppal nañ ak adjoint préfet ah ak ñëpp ñi xam ne ñoo ciy liggéey di gërëm encore ñu baax bu baax Euh, chef de service yi développement communautaire action sociale euh, appui au développement local ak jeunesse nga xam ne ñooñu ñoo ñu jàppale ba nu yegg fii di gërëm aussi relais yi nga xam ne ñooñu dugg ci terrain bi di dire di ñaax nag réseau bi ndax ñoom fi mu nekk nii commencé nañ ci vingt vingt millions vingt millions yoo xam ni ci gërëm gi sax dama fàtte mairie bi parce que mairie bi moom commune bi ñooñu jàppale ñooñu li ñuy def yëpp ci mairie yi lañ ko defee euh, fi ñu cëppaa fi ñu fi ñu nekk nii ba fi ñu nekk tey jii maire yi moo leen jàppale ñuy wax ñuy gërëm bu baax la maire Malick faal moom moo ñu jàppale ak son adjoint Tine waaw vraiment jàppale nañ ñu te lépp lu ñu def dañ cee jàpp jàpp jàpp ba ñu yegg si fii kon boog du ñu mën du leen gërëm di wax nag ñoom tax engagement bi ñu jox ndax fond boo xam ne boo ko jotee foo fond bi doo joxe apport du amul intérêt dañ la wax rek ni la soo jotee xaalis na nga na nga rënk maanaam na nga na nga na nga denc boo dencee boo dencee euh, boo ñetti yoon fonds bi mën nga ko jël maanaam boo jëleen 100000 tey boo de boo remboursé ci 4 mois mun ngaa jëlaat beneen 100000. nga remboursé waat 4 mois mais chaque fois dangay denc bés boo 3 fois boo ko jëlee boo bëggee génn ñu jox la nga dencoon yëpp ñu jox la ko nga yóbbaale ko mais loolu nag tey fond bi mu ne dem bay jur c'est parce que euh, mairie bi dafa ni daf jël engagement ni moom incha allah dina leen jàppale chaque mois comme nekk nañu léegi comme association am nañu réseau am nañuy këyit donc mairie bi léegi amul benn li muy defal ASC yi nee na dina leen ko defal comme ça chaque année mu def lu mu mu boole mu defal leen ci subvention ñu leen ciy gërëm di leen sant nag di wax nag vraiment ah di ñaax réseau bi nag pour ñu gën a nekk nag ci ñu bokk ci réseau yi nga xam ni tey jii bu nuy wanee mën nañ mën nañ leen wane maanaam lool loolu ñu koy defee mooy projet yi nga xam ne moom la ñuy def bu nu demee ci terrain bi ñu fekk ko fa ñu ne ñoom ñoo ngi ciy yëngatu seen projet yi naat ñaareel ba remboursement bi ni ñu leen koy waxee ah ñu defee ko noonu ba nga xam ne seen réseau bi tey ñoom ñu bokk ci réseau yi jël pee naam nit ñi amoon nañ bourse familiale di fayee ko mais loolu buñ ko fayee dañ koy yóbbu ci seen i lekk ko léegi ñu xool ne loolu xëy na du jàppandil njël li ba mën a suqaliku ni mu waree léegi waa ministère de la famille nag ak parem ñu euh, coordonnatrice bi Awa Wade Sow nee woon nañ ñu ñëw jàppale commune Diourbel après Covid bi mën a suqali njël yooyu ci lañ tànne woon ñaar téeméeri njël ak juróom fukk pour jàppale leen léegi ci ñaar téeméeri njël ak juróom fukk yooyu nag jël nañ ci fukk ñaar fukk ak juróom yoo xam ne ay personnes handicapées lañ ñoom tamit ñu war leen a jox ay financement comme bourse sociale yaa ngi fi ñoom ñu ne ci à côté des bourses sociales nañ def ay bourse économique loo xam ne dañuy jël nit ñi nga xam ne ñu ngi yëngu ci dara di leen jàppale bu ko defee ñu mën a suqali seen loolu ñuy jàpp seen i ñoom ñu gis ci seen bopp waaye seen njël tamit ak seen njaboot gis ci seen bopp bu baax a baax. man la Mbayang Diop maa ngi dëkk fii Kër Cheikh Diourbel nekk bénéficiaire. ci réseau économique familial may sant bu baax nag waa Parem di leen gërëm defal ñu defal nañu ay formation formé nañu finance financé ñu pour bëgg ñu mën a kii daal amal suñ bopp dara ma siy kontaan bu baax di leen sant bu baax di sant madame Awa Sow di sant ñoom madame Diop madame Maroon ndax sonn nañ ci torop depuis octobre ba léegi ñu ngi si liggéey bi nekk ci di ko liggéey ba heure bii ba nga xam ne sotti na kon dañuy sant yàlla bu baax di ñaan yàlla lii mu ñu jox ñu mën koo tenir ba tegaat teg dara ci loxoom ba xam ne ñun lim ñu jox kii nañ ci gis nañ ci suñu bopp. du ab sëgee euh, dëkk Diourbel bokk ci réseau Parem bi bourse économie familiale taxaw nañ ñu euh, soo gisee lii lépp dañu bëgg ñu dem ak suñu bopp. bañ a topp ci kenn loolu moo tax ñu ñëw pour jàppale jigéen ñi di di di di di di di di di di sant tamit euh, ministre de la femme Ndeye sali Diop wax dëgg yàlla lii lépp moom la grâce à madame Sow wax dëgg yàlla ñu ngi sant bu baax tamit. la Dia bokk ci programme bi ànd takku liggéey bi nga xamante ni waa ministère de la femme bu Ndeye Saly Diop moo ñu ko. financé. ngir ngi rafetlu bu baax projet bi ndax wax dëgg yàlla ñun ñi nga xamante ni amuñu doole mënuñoo accès ci financement yu mag yi lii lu baax la ci ñun dinañu jàppale ëllëg ba nga xamante ni dinañ mën a demal suñu bopp ba lépp luñ bëgg a def ak fépp fuñ bëgg a àgg ñu mën fay àgg ndax kenn ku nekk wàll wa nga yëngatu liñ la jox financé la ko. boo ci góorgóorloo di nga dem ba mën a demal sa bopp kon ñu ngi rafetlu wax dëgg yàlla journée bi ñu ngi rafetlu financement bi di ñaan yàlla suñu boroom nii ñu ci duggee ci bisimilahi rahmaani rahim commencé ko ca formation ba ba tey jii di financement bi yal na yàlla suñu boroom def ñu àggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin ba yeneen nit ñëw mën cee bénéficier wu ci kàttanu yàlla yàlla nañu yàlla defal jàmm jàpp lañu may ñu wér ak wér la bañ mën a fay ci jàmm ak salaam te yàlla suñ borom barkeel ko ful ko